ah yàlla nag wax ay yéeféer yi ne leen waaw borom xam-xam bii di abdullah ibnu abdullah salaam kooku su fekkent ne ñëw na gëm yonent yàlla Muhammad ndax kon waay waa Màkka bu fekkente ne weddi nañu yonent yàlla Muhammad ndax kon newuñ ci daasi ah kay Saad ibn Abi Waqaas nee na masumay gis kuy dox ci kaw suuf yonent bi sallallahu alayhi wax ne ci waa aljanna la bokk lu dul abdullah ibnu salaam abdullah ibnu salaam moom yonent bi sa salaam nee na ku bëgg gis kuy dox ci kaw suuf te nekk aljanna xoolal abdullah ibnu salaam ñu ne loolu dafay fekk nag njëkk bala yàlla y bégal fukk yim bégal aljanna kon kay ni yàlla bégal aljanna ëpp nañ fukk luy dem ndax waa badar ci lañ bokk te ñooñu ñett téeméer la ñoo nag fukk ak ñett ginnaaw ga am nañu yàlla gërëm ah, ñu bari de waaye abdullah ibnu salaam mi yonent bi sa salaam yàgg naa wax ni nitu aljanna la inna allah naka yàlla laa yahdi du jubal alqawma nit alzalimina wa way tooñ de wa qaala wax na alladina na nga xam ne kafaru weddi nañ lilladina ñi ñeel ñi nga xam ne amano gëm nañ waaw ña nga leen di wax nag ne law kaana bu fekkonte ne ngëm yàlla dafa nekk xayran di aw yiw kon day maa naa duñ ñu jiitu ilay jëm ci jëm ci gëm yàlla ndax ñun ñoo leen gën a ñoo leen gën a xam la baax ñoo leen ko gën a yelloo waaye nag ñoom wa id lam yahtadoo ndem gindeeku wuñ bii ci alquran fa sa yaquluuna dañuy wax ne hada li ifkun nar la qadim nu daa ji yàgg kuy mbëru ku nekk loolu ngay gis loolu ngay faral di gis lay wax bu doon lu baax duñ ñi ci jiitu foog nañ ne yëf yi ci taraangaay alal laak daraja te alquran ji motax ñu ne alquran bu doon lu baax konon da ngeen ñu ci fekk ndax ñun ñoo leen gën a foor ne wa min qablihi jitu na alquran musa Moussa bi yonent yàlla Musa muy tawrat imaman mu nekkoon di njiit waraamata nekk di yërmande ñeel ñi ko gëm wa hada alquran ji moom itam kitaabun téere la musaddiqun buy dëggal Ah, ñeel téere ya ko jitoon yëpp lisaanan mu di aw lang arabiyan wuy koj arab li tunzira ngir nga waar alladina ña nga xam ne zalamoo tooñ nañu ci bokkaale ak yàlla seen borom de wa bushra waaye it mu nekk di mbégte lil muhsinin ni ñeel way rafetal yi yàlla na yàlla bonañ ci way rafetal yi inna alladina naka ñi nga xam ne xaaloo wax nañ rabbuna sun borom daal allahu moo di borom bi ñun daal yàllaay sun borom waaye xemuñ ca summa staqaamoo topp dañoo jub koc ci topp yàlla mi nga xam ne mooy seen borom summa staqaamoo topp ñu jub ñooñu dey falaa xawfun déet jàqare aleem di leen war wala am déet ñooñ yaxzanoona ñu dafay jaaxle ulaayika ñooñu asxaabul jannati ñooy wa aljanna xaalidina ñu de way biir fiyaa ca aljanna jooju jazaan mu di ab pay di maa kaanoo ca lañ nekkoon yaa amaloon di ko jëf yàlla yàlla boole ñu ca wa wasay naa dénk nañ al insaanu doomu aadama jum mën doon dénk nañ ko mu rafetal bi waalidayhi jëmee ci waay waay ñaari waay juram xusnan ak rafetal dénk nañ nit mu jaamu yàlla te rafetal jëmee ci ñaari waay loo tax xamalatu am bu ko ummuhu yaayam karhan ciw tiis ak i métit feebar yaram wu tàng akuk doyadi woodaatu mu sippi te mooy mu himbi ko këran ciw tiis looloo tax kon war na baaxe jëme ci yaay lu ëpp lim baaxe jëme ci baay ànd ne war na baaxe jeme ci baay lu bare bari wa xamluhu te diirub ab hëmbam wa fisaaluhu akuk feram mi ngi nekk salaasuna fanweer cheuran ci ay xat mooy cheuran ci weer loolu mooy ñaari xat ak juróom benn weer loolu mooy mooy fanweeri weer looloo tax ñu ne kon li gën a néew cib hëmbëb jigéen mooy juróom benn weer laay ji moo ñu tegtal loolu ne kon ab hëmb li ci gën a tuuti mooy juróom benni juróom benni weer ndax diirub li nga li li nga xamante ne mooy nàmp mooy ñaari at alquran nee na woon wal walidaatu yurdi'na awlaadahunna hawlayni kaamilayni waajur yi ñoo di way nàmpal seen doom ñaari at yu mat sëkk hawlayni kaamilayni nag kooku ñaar fukki weer la ak ñeent kon diirub hëmb li ci gën a tuuti mooy juróom benn weer ñu boole ko diirub hëmb bi ak diirub nampal bi nekk fanweeri weer looloo tax buñ ci génnee ñaari at yi juróom benn weer rek a cee des kon nag li gën a tuuti ci ab hëmb daal mooy juróom benn weer loolu wax yoo ko indi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ko waaye laga nga xamante ne eh, essayé nañ koy la dalee jiitu ci jamono ba jamonoy tey loolu lañ ci gis masu ñoo gis ëmb bu gën a tuuti juróom benn weer moo tax su amee rek ñu xam ne kon doom jooju kañ ko askanale moomul ko benn scientifique bu ñu daan tuddee jaal ñoos ah mos na wax ne doon na fuglu mbir yi te moom docteur la bu xarañ mu gis maanaa koo xamante ne ah ku ñu koo xam ne ku juddu la waaye bi muy juddu mi ngi am ci bopp bi téeméer ak juróom-ñett fukk ak ñeent ci bés téeméeri bés ak juróom-ñett fukki bés ak ñeenti bés loolu nag biñ ko xaymaa muy juróom benn weer ak ñeenti fan yàlla tabaraka wa toujours xikmaam daf koy dalal dawal ci juróom-ñaar juróom-ñaar euh, semaine maanaam ginnaaw semaine semaine ci jeexitu semaine ci lay soppar ni maanaa bindu bi nga xamante ne moom lay bind ci biirub nday loolu nag xikmaam la ci la nga xamante ne mooy daw ci àdduna mu nekk juróom-ñaari bés doomu aadama tam yàlla bind ko ci biirum ndeyam ñeen fukki fan mu nekk di aw toq toqant mani yeneen ñeen fukku mu nekk di aw lumbo yeneen ñeen fukku mu nekk di aw suux yàlla wal ci moom roxo noonu la ko yonent waxee loolu mooy xikma borom bi tabaraka wa taala yonent bi salaahu salaam wax na ci hadis boo xamante ne Abdullah ibn Mas'ud moo ko nettali ne yonent wax na waxtaanal nañu bés te moom mooy ki nga xamante ne moo dëggu tañ dëggal ko inna ahadakum la yajma la yujmau xalquhu xalquhu fi batni ummihi arbaina yawman nutfa summa yakuna alaqa misla dalika summa yakuna mudga misla dalika summa yursilu yursalu ilayhi almalaku fa yanfuxu fihi ruux xadis bi noonu la demee moo tax par ñeen fukk ñeen fukk noonu la ko yonent saaw salaam waxee looloo tax jigéen itam di tëñ ji maanaam ñeenti weer ak fukki fan bu jëkkëram faato ndax ñeen fukk ñetti ñeen fukk yooyu ah ñeenti weer la yu dolleeku ñu dolli ci nag fukki fan ngir laamtu ngir lan bu fekkente ne roxom ja dara tàbbi na ca ca roxu mu ja bu boobaa roxo dana ca dem bu ko defee ñu mën a xam ndax ndunda ta ngi foofu wala déet bañ man ko bàyyi xel ci cëram danu bu yàlla bëggee maanaam bu toqent ma ni waddee ci ruuxu moom day yàlla nam mu ca bindeef ñu ne toqent bi dana wër wërngalu kom ni kuppungal di mel wala ni ab bal di mel noonu lay mel ba ne tàpp ca ruxum ga ginnaaw juróom benn bés ci lay mujj mel ni ab bër mel ni diw dax ginnaaw juróom benn bés yooyu bu ko defee nag suñ ca boolee bés ba nga xamante ne cala duggoon ca ruxum ak day muy juróom-ñaari bés foofu nag bu fekkonte ne man nga xool ma nii ma ba xool ko seetantal ko da nga gis ne dana am ñetti tomb yoo xamante ne ñooy nekk ca kaw toqent boobale benn tomb bu xonq nekk ca kaw benn tomb bu xonq nekk ci digg bi beneen tomb bu xonq nekk ca wet ak ndeyjoor ga tomb bu xonq bay fara kaw loola mooy mujj nekk yuur gay nekk ca biir bopp ba tomb bu xonq bay nekk ca maanaam euh, ba nga xamante ne moo nekk ca digg digg ba kooku mooy mujj nekk xol ba ba nga xamante ne mooy nekk ca wet ga ca watoog ndeyjoor ga boobu mooy mujj nekk res wa loolu nag bu ñu demaate beneen semaine ñaareel euh, tomb dana mujj nekk maanaa tomb ab deret man yu maanaam day mujj nekk maanaam deret de tomb yooyu deret lay mujj nekk noonu lay continuer maanaam balaa juróom-ñaari fan man yu mi yëpp dana mujj soppartiku aw lumbu deret de ginnaaw juróom-ñaari fan mu mujj nekk aw suux woo xamante ne dafay def ay xaaj-xaaj xaaj-xaaj yooyu nag day commencé de xaaj-xaaju ndànk par ndànk bu demee ba mbee mut bi mat mujji mu mat fanweeri fan ndax mooy ñeenti juróom-ñaar yu teg dara ah ñu demaat nag ba nga xamante ne mujj tegaat na ci juróomi fan muy fanweeri fan ak juróom wala ñeen fukki fan ba ñeen fukk ak juróom ci kemtalaayu nag ni yàllaay doxalee ab bindam bu fekkente ne bind bi matoon na ci fanweeri fan ah bu do lum dolli ci fan weer ya rek mu day daal di mujj nekk maanaam ñaari weer loolu lay fulande bu ko defee ba mujj nekk maanaam ñeenti weer su matee ñeenti weer ci la yàllay wal maanaam roxo ga bu ko defee loolu yëpp bu matee tom maanaam mu nekk toqent nekk aw lumbu nekk di aw suux loolu yëpp day mate ci maanaam diiru fanweeri fan yoo xamante ne dañ caa boole haat yeneen fanweeri fan boole waat ca yéen mu nekk ñaari weer ñu ñu fulande ko ñaari yoon mu nekk ñeenti weer loolu nag ci la yàlla di wale roxo muy ñeenti weer nekk téeméeri guddi ak ñaar fukk yoo xamante ne war naa tolloog téeméeri ak ñaar fukk yi nga xamante ne moo doon bindub bindub bu fekkente ne ñeenti weer yi dolleeku na a maanaam yeneen ñaari weer mbéemun mi daal di génn loolooy tax doom war naa mën a juddu ci maanaam juróom benn weer waaye nag bind ba mën na yéex ci kamtalaay noonu ñu la ko joxe woon ca gannaaw ci ñeen fukk ba walla ci ci ñeent fukk ba juróom bu fekkente ne mbéemut mi mat matul woon ci fanweer kanaa dafa mate woon ci ñeent fanweer ak juróom wala mu mate woon ci maanaam ñeent fukk bu boobaa kon faaw mu dolleeku waat yeneen ñaari weer walla mu dolleeku benn weer ala kulli haal par saba saba ci la bind di dolleeku loolu nag la yonente bi saa salam wax ne ah, kenn ku nekk ci yéen dina dajale bindu ah, bi ab bindam ci biirub ndayam ñeen fukki fan par ñeen fukki fan ñeen fukku juróom ñett fukku téeméeri guddi ak ñaar fukku kon par ful lay lay dolli bu ko defee nag juróomi weer ak fukki fan lépp lépp lépp mën na ko doon bu ko defee ñu teg ci ay bés mbéemun bi daal di juddu de te mooy buñ ci tegee fukki maanaam juróom-ñetti bés loolu mooy alxaalib ñi nga xamante ne ñooy faral di juddu ci maanaam juróom eh, ci ci ci lu ci ci ci lu ci juróom benn weer ak lu teg tuuti ñaareel ñi ciy dund ñoom bariwuñ ñu ne kanaa lu mooy ci dëkk yu mag ya bu fekkente ne nag mbébun moo matut foofu comme niñ ko waxe kanaa mu mate ci ñeen fukk ah ñu teg ca juróom muy ñeen fukk juróom kon bu boobaa ci juróom ñeen fukki fan ci la bind ba di mat mooy ñetti weer ñu tegaat ci lu ko ful muy juróom benn weer ñu tegaat ci fulam muy juróom ñeneenti weer kooku moo gën a bari ci li nga xamante ne moo ci la doom di juddu mat looloo tax kon li gën a tuuti ci ëmb mooy juróom benn weer waaye mën naa nekk juróom ñaari weer waaye mën naa nekk it juróom ñetti weer juróom ñetti weer nag lañ la wax ne la cay dund moom bëriwut la ca gën a bari daal mooy juróom ñeenti weer looloo tax ñu ne lu tax nag lu judd ci juróom-ñaari weer du lu waral loolu te bu juddoo ci juróom-ñetti weer du dund ñu ne li ko waral mooy mbéemun mi mi day matee ci juróom-benni weer waaye bu ko defee nag ci lay ñoddeeku ngir génn diirub weer bu fekkente na ñoddeeku na diirub weer di bëgg a génn bu génnee kon bu boobaa dana génn mucc nekk doomi juróom-ñaar juróom-ñaari weer labaas bi kon bu boobaa du fekk mu sonn waaye bu weer woowu sonnee bu weer woowu weesoo mu continuer di ñoddeeku dafay jànkuwanteeg ci coono loo xamante ne day tollaat ci weer buy génn nag dafay fekk mu néew doole lool feebar lool looloo tax bu génnee ci juróom-ñetti weer kon la ca gën a bari mooy du dund waaye bu fekkente ne bu ci bu juddoo ci juróom-ñaari dégg nga bu fekkente ne doom juddu na dund juróom-ñaari at loolu mooy benn semaine bu njëkk bi bu matalaatee juróom-ñaari at ah bu boobaa bindam day daal di commencé di soppartiku ay cëram di dijji bu ko defee mu commencé di am kattan bañam ya nga xamantene ne ñoo doon bañu gune fekk yépp wadd na ndax bañ yooya bañu néew doole la soppartu quoi yeneen bañ yu am doole mu mujj xelam commencé di ñaw mu commencé nag maanaam bu amee juróom-ñaari at lay wax commencé nag di mën a dugg école mën a buñ ca dollee juróom-ñaari at fekk nag kàddoom commencé di dëhër nga xamante ne bu yëkkatee kàddoom rek maanaam dafay dijj lool waaye poqutaanam commencé di euh, génne ak xet waaye mën naa commencé tam di sax foofu maanaam kawar yi naq ak yu poqutaan ma sax ci fukki at ak ñeent nit mën na cee géntee bu fekkente ne góor la walla mu gis ca mbërëg bu fekkee jigéen la loolu mooy diirub li nga xamante ne ci lay mat baaleex looloo tax nit mën na baaleex ci fukki at ak juróom waaye loolu mooy mazhabu imam Shafii wal moo gën a lëng it wax ya waaye nag euh, ci fukki at ak juróom-ñett it am nañu ko wax bu doolee juróom-ñaari at mujj nekk ñaar fukki ak benn waa bu boobaa nag ci lay mujj nekk góor goo xamante ne day àgg ci dayoo taar boobaa ah commencé sax ci kiiñ nag xelam daal di dëgër lool waaye nag am leneen lu ca tege mooy bànneexab kàndoo itam commencé di dëgër ci moom mu xam jubluwaayu góor xelam commencé di nàcc nag di jëm ci mbiram kër ak yu ko niru bu ca tegee juróom-ñaari at mujj nekk ñaar fukki at ñett bu ko defee nag muy mooy ñeenti semaines yi nga xam ne moo doon bind bind bu njëkk ba loolu nag mooy wërngaluwaayu weer itam weer bu amee ñaar fukki fan ñett kooku mat na ci ñaar fukki fan ak juróom-ñett mat na ci dayo de bu ko defee mu dolliwaat juróom-ñaari at ji am fanweeri at juróom mu amee fanweeri at ak juróom loolu mooy ak dëhëram ci li gën a bari nit foofu lay jotee dëhëram dëgg-dëgg waaye nag am na mu néggandiku itam bu fekkente ne àgg na ci at yii ci lay jot ak dëhëram waaye nag nit ñi dañ cee wuute am na koo xamante ne ak dëhëram dafay yéexamtalu naka nga xamante ne ca bind mbéewut maatam am na ci ñoo xam ne seen bind dafay xaw a yéex boobaa mën na caa dolli juróomi at nam ca dolle woon juróomi fan muy ñeen fukki fan wala mu dolli ci juróomi fan juróomi fan muy ñeent fukki fan ak juróom loolu mooy tombeek itam maanaam ñeent fukki atam ci lay ñu bëri nag di dëhër dëhër gu tax moo tax googu nag la alquran tudd tuddul ñeent fukk ak juróom tuddul fanweer ak juróom xata ida balaga ashuddahu wa balaga arbaina sana la ci teg kooku nag bu boobaa xelam mat na ba daanaka dootul dolleeku kattanam mat na ba daa daanaka dootul dolleeku léppam yegg na ci dayoom dootul dolleekum xel dootul dolleekum doole la cay tege kanaa mooy nag commencé nag di wàññeeku ndànk par ndànk kanaa lu mooy ci koo xamante ne xelam mat na sëkk kàttanam mat sëkk tem jublu yàlla ki nga xamante ne mooy boromam kooku moom ah dana ni muy dolle ci at noonu la kelam di dolle koo de noonu la ak ñëwam di dolle ko yaramam nag moom faaw mu wàññeeku katanal bakanam itam faaw mu waya waye xelam mom du bukara mukk bu ko defee nag ba jaaw commencé di yek bop katan katanal borom bi commencé di dolleeku kattanal jëmmam commencé di wàññeeku lolo tax yalla yonent bu muy yónni la ca gëna bari mom moy mu yónni la ci ñeen fukki at lu moy kana lu neew lolu nga xamantene duñ ko até comme yonent yalla ay ak yahya ak yusufa ñooñu moom yàlla yónni na leen te amaguñu ñeen fukki at waaye su mooy yonent yi ci des ñoom ci gën a bari yàllaa ngi leen yónni ci ñeen fukki at de loolu mooy barabu nag fi nga xamante ne nit fi lay jotee kàttanam dëgg-dëgg mu mat sëkk looloo tax mu wax ne xatta ida balaga ashiddahu wa balaga arbaina sana jot kàttanam dëgg-dëgg <clears throat> mi ngi mel ni ci ñeen fukki fan ak juróom wala ñeen fukki at ak juróom ci la waroon a jot ak dëhëram waaye nag loolu man naa yéexamtalu ba ñeen fukki at mu jotee fab dëhëram waaye jot fa itam am ñeen fukki at am na jenn jigéen ju juddoon ci jamono Seydina Omar ci juróom benni weer comme niñ ko waxee amar teg ko bëgg ko jam waaye biñ ko bëggee jam Seydina Aliyun ñëw ne ko lu tax ñu bëgg koo jam ne ne dafa njaalo mu ne dafa njaalo mu ne ko lu tax te alquran wax ne wa hamluhu wa fisaaluhu salaasuna shahran diirub liñ ko ëmb ak diirub li nga xamante ne mooy feral gi lépp fanweeri weer la te alquran wax na ne wal waalidaatu yurdi'na awlaadahunna hawlayni kaamilayni liman araada an yutimma ridaa looloo tax eh, buñ bu dindee ci fanweeri weer buñ ci dindee maanaam ñaar fukki weer ak ñeent kon juróom benn weer a cay des wa bar ne wallahi laa yashtu fii qarnin laysa fiha abul hasan man de yàlla bu ma dund ci euh, seekal boo xamante ne ba bàyyoo hasan nekku ca jublu ca sayiduna ali kon kooku moom bu fekkonte ne sayiduna ali néew foon dañ koy caw wala ñu jam ko sax boog ci noo xamante ne maanaam juum tey mujtahid la kon juróom benn weer moo gën a tuuti ci li nga xamante ne moom lañ natt ci li doomu aadama war a nekk ci biirum nday juddoo ca alquran saxaloon ko bu yàgg te alquran wa moom toujours ci li nga xamante ne moo gën a égalité rekk lay wax waxul nag ca la nga xamante ne wuute am na ca ndax ëmb noonu lañu wax ne moo ca gën a tuuti waaye am na ëmb yu weesu loolu luy dem ëmb dem na ba ñeenti at ndax ëmb itam nit sax nay sax na maanaam bëñ ci biirum ndeyam juddu indiwaalay bëñ ñu foog ne ñu foog ne dara la te fekk déedéet yàgg ci ëmb ba rek moo ko waral aha am na ku ñuy nettali diw sàngam yaayu diw ak diw nee na ñoon bi muy juddu dafa indiwaale ay bëñ loolu yàgg ci ëmb moo koy waral <clears throat> kon juróomi at moom la Malick wax ne moo gën a bari cib ëmb loolu nag ñu ne yeneen yeneen aima yi moom ku dul ñoom wax nañ ne ëmb mën naa dem sax ba ba am fukki at ñun fekkee nañu ci njaareem soxna soo xam ne mu ngi woon ca garaas ba doon jaay maanaam lu mel ni ki eh, doon jaay maanaam orange ak yu ko niru genre malin yooyu la woon fekk nañ ko mu ëmb ba ñuy dem njaareem nekk nañ fa 84 85 86 87 ba 88 ci la am doom kon li alquran wax dafa gisut dafa bëriwut luñ koy gis waaye nag am na ëmb kii nag yeneen ay ima nag ñoom wax nañ ne ab ëmb dana dem ba maanaam fukki at waaye Malik moom juróomi at la ko dayal alquran nag xutalu ko dayo lu tax maanaa xam-xam mën naa génne ji lu ëpp loolu kon nit boo amee ñeen fukki at ñu ne yàlla fegal ko ñetti musiba su fekkente ne toppatoo na boppam dootul dof ndoxam si ti dootu ko gañe ngaana it dootu ko gañe bu fekkente ne feebar yii bu ci feeñ ci moom rek bay boo xam ne dafa tàmbali woon lu jiitu ñeen fukki at waaye bu fekkente ne tàmbaliwutoon lu jiitu ñeent fukki kon feebar yi moom na xam ne mucc na ca dootul dootul dootul ko jotati wala dootul ko jàggateeti boo amee juróom fukki at yàlla dana xoyofal ak regle jëfam ca moom mooy su jëfatee lu baax ñu bindal ko ko waaye su jëfee lu bon ñu jëlale ko ah, kon gudd fan am na njariñ boo amee juróom benn fukki yàlla wërsëgal ko ak tuub waaye yàlla wërsëgal ko tam ak mbëggeel goo xamante ne fa koy teg ca kawam bu demee ba am juróom-ñaar fukki at yàlla bëggal ko boppam mooy sopp ko ah mu bokk ci soppee yàlla yi ah, boo amee juróom-ñett fukki at nag yàlla nangul ko mboolem lu mu jëfoon ci lu baax waaye faral ko mboolem lu mu mës a jëf ci lu bon boo mu amee juróom-ñeent fukki at yàlla jéggal ko lam jiital ci bakkaar ak lam yéexe ci ay topp yàlla te tënuloo ko ci aw xeetam maanaam ci ay ci ci waa ci waa këram ndeysaan kooku mooy ki am juróom-ñeent fukki at kon ba jaaw ah mu teraanga yooyu kon ngay xam ne rek nit ki bu commencé be jaaw rek commencé na teraanga yooyu bàyyi ko ca baramam yal na yàlla def ñu ñu àgg ci yooyu la at te buñ tële buñ yokkat buñ naax buñ silmaxa yooyu yëpp yàlla musal ci yaa rabbi xam nga ne yàlla jéggal la sa bakkaar yu njëkk ak yu mujj rek jar na gudd fan ki njëkk be jaaw ci mboolem lu yàlla bind mooy yonent yàlla ibrahim yàllaa ko ko defal ngir teraangal ko dafa ismaila moo màgg niru ko lool mune ne yàlla na ko defal xàmmikaay boo xamante ne maanaam danañ ko ko xàmmee ak doomam ji mooy ismail yàlla defal ko be jaaw ca sikkiñam mu ne yàlla lii day bu dolle koo ma jël yàlla euh, soppil ko bindam mu ne lii daag wegeel la yow ibrahim waaye leer laa tam maanaam bi mu ñëwee dafa laajte yàlla lii la dangaa soppi ni ma bindee mu ne ko ibrahima malaa defal ak wegeel goo xamante ne ku la seen weg la euh, ma defal la it leer mu ne ko yàlla kon dollil yàlla dolli ma wegeel waaye dolli ma euh, leer moo tax ku béjjaaw ci lislaam dana am leer bés ci yàlla na yàlla may jaaw ci lislaam alquran ne hatta ida balaga ba saa yoo xamante ne ak muy fan wa ba at wa balaga mu jot arbaina ñeen fukku sanatan ci hat at xaala ma nga naan kooku fekk xelam ñor te kooku ma ngi ca jiblu sayidna abubakar ma nga naan rabbi ay sama borom aw seexni yàlla ma xërtal eh, yàlla nag ma yankawal an ashkura ba ma mën nemataka sa xéewal allati gi nga xam ne anamta yaa ko xéewale alayya waral ma wa ala walidayya ak nga xéewale ko sumay ñaari jur moom yàlla dogal na ñaari wayjuram yëpp tuub nañ dugg ci lislaam loolu lay santee borom bi mu ne yàlla maa ngi lay sant loolu waaye yàlla nag ma xarit waan amala may ba may jëf saalihan jëf ju baax tardaahu joo gërëm wa aslih te yàlla na nga yéwénal lii ñeel ma fii durriyati ci sumay doom moo tax ay doom yëpp tuub nañ donte la am na ci ku meloon neneen itam te réewul mujj na tuub nii man de tubtu tuub naa ilekk jëm si fi yow wa inni man minal muslimina maa ngi bokk ci way jébbalul yi sa borom buur ne ulaayika ñooñu lazina ñooñu nga xam ne yu taqabbalu def na jé def na nangu xanum walif leen ahsanu maa gën jaarafeti laala amiloo jëfe jëfoon nañu ko wa yatajaawasu wa yatajaawasu te def na jéggal an sayyi'aatihim wali seeni ñaawteeb fii ashaabil jannati ca gaayu aljanna waada sidiqi loolu de moo di dëhël ab dëgg de alladi dëhël bi nga xam ne kaanu nekkoon nañ yoo xaa doona dee fi leen koy dëxal yal na yàlla boole ñu ca yal na yàlla wasal ci ñun barke alquran yal na yàlla gëmloo ñu alquran yal na yàlla toppaloo ñu ko yaa rabbi barke yonent yàlla muhammad salawatullahi wa salaamu alayhi allahumma salli ala sayyidina muhammad